Eh, ah, ah Père Balla ndeysaan kon li ñuy wax rek nee naa leen waa axlu làmb ñoom ñoo ñàkk kii nag nekk Bombardier de Mbour ñëpp xam nañ ko mu nekk koo xamante ni nee naa leen ci Mbour la dëkk mais amul xaaj amul seen tey mu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy dëju Père Balla maa ngi lay nuyu. waaw Fatou maa ngi lay nuyu di nuyu Sénégal yëpp euh, di wax ni teewaay bi yomb na mën nga ko wax si mën nga ko résumer si yomb rek mooy euh, Balla Gaye 1 woon si ñun ñi nijaay ñii maam. ñu xàlloon yoon bi nag ñoom ñoo xaaloon yoon bi tey ba tax ñun ñu ñimee ndax defe naa seen carrière ñun bi ñuy ñëw fekk na ñoom ñu ngi arrêté mais rafetal nañ ko ba nga xam ñun bi ñu ñëwee fekk nañ lépp rafet kon tey bu luy xewee euh, du mbër mu dëkk Mbour ak mbër mu dëkk Géejawaay ou ku dëkk Parcelles Balla Gaye Balla Gaye ñëpp la woon kon moo tax tey ñu bàyyi lépp lu ñu doon def euh, ñëw teew si bés bi jaale ñaanal ko yàlla yàlla xaaral ko àjjana ndax damay wax ni. Euh, gën bees le moo fi nekk mais naqar moom ñoom ngi moom a dëkk euh, li ma la wax léegi mat un an sama mag bi mu génnee àdduna ñoom ñëpp def délégation ku nekk ñëw jaale àddina moom noonu la rek nañ koy yéex di fayante mais mënul ñàkk kon tey tuuram la waaw ñu ngi koy ñaanal rek yàlla euh, xaare ko àjjana fi daw si te mu rëcc lu mu defe fii yàlla may njabootam xolu muñ waaw sunu magum làmb la woon sunu tonton la woon sunu kilifa la woon kon tey bu li amee waaw lépp képp ku sportif rek lépp loo jàppoon da koy bàyyi nga ñëw teew donc defe naa tey su ma teewee dinaa teew si mbër yu bari kàddu mbër yu bari donc à travers sama kàddu daal maa ngi jaale Balla Gaye Ndour euh, yàlla xaare ko àjjana jégal koy bàkkaaram waaw. Euh, seen relation yéen ñaan nan la demee woon. waaw xam nga man sama côté yaay waalo waalo lañu am na côté boo xam tey boo demee tey cago Thiago Tembey. moom foofu la cosaanoo moom ñoom Souleymane Diaw ak ñoom Mohamed Ali ñi am na côté boobu ay bokk lañu mais xam nga làmb yenn saa yi dafay xaw a sorianto ay nit surtout bu ngeen bokkul écurie mais mbokk moo jiitu euh, biñ mujjee gisante donc waxtaan nañu mu conseillé si làmb parce comme moo ñu jiitu mais relation humaine la ñu amoon maanaam nit ak nit nit ak nijaayam nit ak papaam jàmm rek lañ ma si seq nag mosuñu werante mosuñu xuloo mosuñu am dara maak moom. jàmb lañ seex ba yàlla def tey mu jiitu te bés bi ñun ñëpp dañ mu ngi ñuy xaar ñun ñëpp dañ koy fekki yàlla na yeex kon nañu nañu rafetal rek ba fekki ko ñu ngi koy ñaanal daal mu rëcc lu mu doon defee fii. ñu gis ni euh, fañ yi euh, làmb du mën a sax euh, làmb comme damay généraliser gis nañ ni ñoo xamante ni ci axlu lamb lañ nekk mën nañu xam ne ay ancien gloire lañ parfois dañ ñëpp seen i problème day xaw a critique ndax gisoon ko ci cas Boy Bambara tey Père Balla Gaye Jules Baldé Junior ñu bari na mbëri seen taxawaay dafa xaw a des ci cadre boobu noonu loolu ban message nga siy lancé waaw loolu manque d'organisation la rek xam nga tey làmb dañ ko waroon a structuré ba nga xamante ni tey boo demee retraite di nga am di am looy touché dina am dina am Euh, dina am ay ndimbali yoo xamante ni jóge si état mais boo seetee tey làmb affaire individuelle la donc boo bëree ba pare après jeex na amul retraite loolu ça fait des années ñu ngi koy wax donc manque d' organisation la tey boo gisee ku si bëri ba bàyyi bëree boo amul si leneen loo jàpp rek soo moytul da ngay dund après dund bu difficile donc moo tax euh, may lancé appel si sama rakku mbër yi euh, làmb nañ ko booleeg métier normal tey boo demee ba arrêté sa carrière nga continuer sa métier normal du dëgg euh, CNG bi fi nekk aussi tey di soog a ñëw nañu gën a organiser écurie yi ñu gën a jox cër aussi ancien gloire yi donc tey li ñuy dagg si mbër yi am benn partie boo xam te ne dem si ancien gloire yi parce que boo seetee tey mbër yi feebar yëpp si ay difficulté la ñu nekk ancien gloire yi si ay difficulté la ñu nekk kon organisation la rek ñu am benn partie boo xamante ne tey day dem si ancien gloire yi mooy da def lu xaw kii ndax gis nañ ni yow ak Balla Gaye da ngeen am combat euh, nga am benn affaire boo xam te ni tey dafa am benn yoon laa mën a wax ne boo woon xale yi ndax euh, message nga ci ak ci xale yi nga xam te ne instant bi nekk tey euh, fo agré la rek man man Baye Fall man am na yoo xamante ni dese naa koo dund noonu donc tey maam am combat ak Balla Gaye te yàlla tere bu amoon naqar këram damay dem tey bi ma amee naqar sama kër dafaa ñëw donc tey kii turandoom la moom la tuddee boppam te turandoo dafa fort man tey ñëw ma fi en tant que dama am combat ak Balla Gaye ou dama kenn dama ñëw tey jaale si sama mag sama nijaay sama papa tey fii ñuy jëm tey ñoom aali ñii ñoom manga ñii ñoom ñëpp tey bër nañ ba bàyyi bari gis nga leen tey nii la ñu mel tey noonu laay demee bàyyi Balla Gaye day bàyyi Modou Lo day bàyyi Eumeu Sène day bàyyi donc kon loolu moo fi des ñun ñooy mayente jabar ñun ñooy te doom ñun ñooy def lépp kon làmb fo agré la képp koo gis rek mu jël ko yóbbu ko fenn fi ba defee ne ay ay ennemis la ñu rek xamul lan mooy sport donc kon tey loolu moo ñu findi euh, di jaale waale aussi Balla gay dë parce que tey tudde na ko boppam mooy mu ñëw jël tur bi ba yëkkatiwaat ko fu kawe kon maa ngi koy jaale moom it te yàlla def na tey wala am nañ am nañ combat donc loolu ñëwagul mën a guñ wax tey dañu nekk si dëj donc Hmm? di jaale aussi Youssou Ndour waaw Youssou Ndour doomam gisee nañ fii léegi donc maa ngi koy jaale baax moom it sunu sunu sunu rakk la sunu jarbaat bu nekk si làmb ji da bay waaram ah maa ngi ko koy jaale bu baax a baax di ñaan yàlla may ko xolu muñ moomit te yàlla taxaw ko nag ba tey eh, lépp loo xam ne lu naqaroon papam la rek yàlla defal ko ko mu def ko incha allah merci beaucoup.